Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Info Line 33 859 1685. 85. ak Jaouda Dal, suñu santé day gëna baax Jaouda mom la tamu fepp ci aduna bi. dom ji tudde na vite fait mosquito. ak gamu vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy pompe bu AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. Bâtissons le futur. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka hmm. du vrai café bu ngeen passer passé une commande ngir pas ci probio naturel aldebi wala bokk probio naturel simpi da ngeen di jokkoo ak ñun 78 524 76 76 ananas banana mango de la fraîche dalle, mashallah seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak soay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxaata jeex ak magal oxygène plus bu bees bi seen bu bees système la wañi ay jël sa yaram yépp jël boo paree ma pikir la pikiru kaane bu ko defee nga am pepesu da nga takk jabar ndigal yi ndigal yi ndox newuti ci lii ndig ndigal yi ma ne nafa gu def mille franc ah lii baax na Eh, yow, dengga dengga jaboy. Nga mansé wala? Dengga jaboy bi ni mi def. Ouais. Ndon pikir. Pikir eh, ak lan? Non. Eh, cut. Cut, cut, eh, cut. Oh, oh. c'est oh, quoi ça waaye kii waaye yow maase mu la mu maa piqué. yaram yëpp jël la non doo ma piqué docteur arrête a rey arrête. Eh, mais, ni kuy piqué rek face. c'est bon eh c'est bon allez regagnez vos places allez. bon gars eh, revenons au match. gis ngeen touche bi ñu am ñoo moom touche bi mais touche ko normal parce que occasion la touche ko normal.

bàyyi di parce que moo la ëpp prolonge yow da nga gàtt moo la sut moo la ëpp prolonge moom bu c'est day mel ni corner buy le lu ñuy ci gi man attaquant yi ma yor dañu gaaw attaquant yi yor dañu gaaw mais nag kus man su fekkente ne man maay touche bal bi kan mooy mécanicien bi kan mooy nekk ah finisseur des glaces bi ku koy nekk ah démolisseur bi ku koy nekk ci sama place côte si. eh Bale maanaam su loxo mii ñoo lay jàppale ci milieu terrain bi. gars yi votre attention ñi ngi soga encaisser euh deux buts ci ay penalty ñi ngi soga encaisser deux buts ci ay penalty xam ngeen ne du yoon. mais ñaari bi planté yépp sa waay mi moo ko provoqué yow yaa ko provoqué moo tax ñu du ñu am ñaar planté bu dul yow kan la sa football waaye xoolal li ngay football. kon yóbboo li xew. kii ca naaj ba la. nan naaj naaj baa jàpp ba ci. waaw mais naaj mais naaj bi lu mu joteeg loolu encaissé ay penal naaj bi lu mu joteeg moom. ah fournisseur bi ñu nekk si loxol yoon lu njin njaag loolooy njaag parlons foot et soyons sérieux quand foot gars fii kenn ñëw fi pour fo mm-hmm. ok ah, ah. kët defal sa dernier réglage nun xamante nan dof lu dof mi léegi mu jóg waaye bu ma dof fodoo waxatu waaye mooy fodoo xi dof lépp la ma si yemale jógal rek léegi nga yeew xam ngeen gars yi lan la man dafa am ay termes yu bees yu muy dégg ci yéen et je ne comprends pas ay police ay fournisseurs, ay soleil mais mais l'air à leen coach je lan la xam nga xam naa coach fekk jant bi génnul Ça va être def mat en tout cas essentiel bi moi. on est mené deux buts à un même si fekkee ne ay dawalkatu charrette ngeen di footballal tamit gars yi il faut ngeen assurer ne ñoom waruñu leen a gañe gis ngeen fi ngeen jóge ñoom waruñu leen a gañe waru leen perdre match bi dañoo war a égaliser remontada dolli waat leen beneen xam nga lu mu euh, fii ci senegal ñëpp xam nañ ne toolu yàmbaay yi fi doon ba yépp armée senegal lakk na gars yi mënuñoo revenir o foot te bàyyi waxu ay illicite ay lu yoon di tere on parle du foot nañ leen wax ci 45 minutes bi ñu dese ñu ñëw tàggoo ak ñii def remontada dolliwaat beneen tàggoo ak ñoom. voilà bon eh, voilà amal na la bu leen ma fontoo dégg ngeen baax li ku nekk di am jóob joxal njaay di ñoddi affaire bi dul loolu xamal la mooy ngeen toppe bi si topp mooy barke Dembo Ndiaye ah yow bi fi sa jabar ñëwee yow. eh, eh sa yoon nekku si man ki may waxal xam man Zik mii laay waxal. kuy Zik kuy la wala sax man sama jabar dafay ñëw ponkal mu toll nga yoo xam ne wu Zik xamee woo sax. sax ah da ngay xool da ngay xool ubbil xool. bi fi yow bi fi sa jabar ñëwee fii ah lan ngeen wax fii du yoon da koy tere mm-hmm. ah, bi fi jabaru kër si ñëwee.

Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Infoline 33 859 16 85. ak Jaouda suñu santé day gëna a baax Jaouda mom la tamu Je ci aduna bi. doom ji tudde naa ko vite fait mosquito. ak gaamu vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy dàq yoo pompe bu ay ci yo AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. bâtissons le futur.

seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak sohay bu jom ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex ak magan oxygène plus bu bees bi seen bu bees système la